mbokk xaritu internet yi ñu ngi leen di nuyu sant leen gërëm leen bu baax si seen ànd ak suñu portail d'information témoin TV et témoin le témoin point sn ñu ngi am mbégte bu baax a baax kontaan bu baax a baax tey toogaat fii fa yéene dalal ki nga xamante ne nii eh, c'est un jeune responsable politique nekk président parti jiital Waref eh, di wuyu ci turu Alhassane Niang donc ñu am mbégte bu baax a baax tey fas yéene toog ak moom waxtaan ak moom euh, ci jàmbaarteem et puis ci engagement bi nga xamante am na ko sur le plan politique ak sur le plan social bi nga xamante ne nii aussi mu ngi koy def. Euh, jiital wareef nag di parti bu bees euh, Alhassane ñu ràññee ko ci la nouvelle jeunesse bi nga xamante ne nii tey dugg nañ ci politique bi tey ñu am mbégte fas yéene waxtaan ak moom pour won leen seen jaar-jaaram. li nga xamante ne aussi tamit jot na ko def sur le plan politique Alassane maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm am mbégte bu baax a baax toog ak yow. di la wax nga nuyu suñu internautes yi ñu waxtaan. macha allah Souley maa ngi euh, kontaan di nekk euh, sa invité tey mhm. euh, di nuyu say internautes di nuyu équipe bi nga àndal mhm. di kontaan di am possibilité mën waxtaan ak yéen mhm. en espérant que lépp lu ñu fi wax dina mën a indil askan bi njariñ sa internautes yi waaye dina tax tam ñu mën a xam li nga xam ne moom mooy suñu engagement li ci li waajlu politique incha allah. ok merci Alhassane yow responsable politique nga nekk président parti politique bi di jiital Wareef ba pare nekk jeune aussi ci xoolee ci sa cursus ci sa profil Alhassane yow. yow euh, consultant nga ba pare nekk spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne nii am na fi titulaire d'un master de en sciences politiques stratégie et décision publique et politique de l'institut supérieur de management des affaires publiques et politiques ISMMAPPP à Paris euh, donc tey loolu RIS na suñ ko résumé comme parcours mhm. euh, ñu gis ne am nga benn cursus boo xamante ne scolaire bu RIS quand même tey euh, lan nga ñu ci mën a expliquer tey sooy gën a leeral internet yi mhm. ci sa jaar-jaar tey nga wax leen kan mooy Alhassane Niang waaw maa ngi kontaan ci question boobu mhm. di wax ni Alassane doomu Sénégal la juddoo Dakar Euh, yaroo Thiès mhm. waaye nekk également originaire euh, donc de euh, Saint-Louis donc du Gandiol mhm. ndax sama famille foofu la sokkee mhm. donc maa ngi jàng comme ni ko waxee science politique la la jàng waaye aussi relation internationale ndax am naa ñaari master de en science politique et en relation internationale aussi def aussi ñaari maîtrise benn bi en civilisation étrangère beneen bi en science politique Euh, nekk euh, Bruxelles di fa liggéey dans les réformes institutionnelles euh, depuis maintenant seize ans. di ko def dans quatre-vingt-huit pays. Euh, daanaka ci àdduna bi euh, sama liggéey mooy jàppale réew ñu mën a nekk ñu mën a tegu ci yoon maanaam tabax réew loolu laay nekk di ko def euh, ci domaine yu bëri sur le plan juridique moo xam réforme judiciaire la moo xam sur le plan des finances publiques sur le plan budgétaire décentralisation sur le plan sécurité au plan institutionnel donc voilà loolu laay liggéey au quotidien depuis maintenant 16 ans Euh, di ko defal euh, donc les pays ACP nga xam ne ñu ngi toll ci 88 pays en tout et voilà donc euh, loolu amoon wax dans un premier temps sama Euh, jaar jaar euh, bi nga xamante ne mhm. am na lenn loo xam ne defal naa ko Sénégal euh, moo xam ci wàllu développement territorial la mhm. wala moo xam ci réforme cadre organisationnel avec l'ONAS mhm. wala ci réforme justice voilà donc loolu moo nekk li nga xam moom mooy suñu taxawaay ak suñu doxalin depuis maintenant une seizaine d'années. ok merci parcours bi ris na mais dañu bëgg xam lan moo la yóbbu nga dem Paris jànge woon Paris. waaw lii ma yóbbu euh, Paris euh, sama papa moo ba ñu defee euh, brevet BFM. ci la suñu papa décidé nañ dañuy dem jàngi. Mm-hmm. France donc foofu laa defee lycée. bi ma paree jàng lycée dem université. Mm-hmm. bi ma demee université nag ba ma nekkee maîtrise. Mm-hmm. daanaka sax balaa ma dem université liggéeyoon naa fi pendant trois ñetti at yoo xamante ne dama doon def ce qu'on appelle le trading moom mooy donc le trading des devises internationales mais. après ma ma ne xaar ma dem euh, reprendre samay études. Mhm. bi ma reprendre études yi nag bi ma demee ba am licence mhm. euh, dama décidé euh, def ñaari maîtrise mu nekkoon lu xaw a compliqué. Mhm. li taxoon ma bëgg def ñaari maîtrise parce que dama amoon benn gis-gis te gis-gis boobu mënuma koon tënk ci kaw benn cursus moo tax nag ma décidé mu nekkoon lu jafe lu difficile. Euh, def benn euh, maîtrise à la Sorbonne mais def également benn maîtrise euh, donc à l'Institut supérieur de management des affaires publiques et politiques muy ISMAP bon yàlla defal ma sutura ba ma am ñaari maîtrise yi ci même année bi année bi si topp ma defaat ñaari master muy ay master 2 benn bi en sciences politiques benn bi en relations internationales parce que liggéey bi ma bëggoon def ba euh, nga xamante ni euh, cursus yi dañ ko waroon euh, mën a permettre mhm. il fallait ñu doon lu complémentaire moo tax ma def ñaari master 2 yi mhm. yàlla defal ñu ci sutura là encore une fois mhm. te ba may def master 2 bi suñu école daf ma ràññewoon ci ñu war a dem Belgique. ma dem Bruxelles nag foofu laa defee sama master 2 def beneen bi Paris. donc yàlla def ci sutura. ba ñu am ñaari master 2 yi ci même année bi. ci nag laa commencé nag liggéey. donc dans les réformes institutionnelles. Euh, depuis maintenant 16 ans ci loolu laa nekk. Mhm. donc depuis pendant 16 ans nga nekk di liggéey ci réforme institutionnelle yi euh, nga choisir. Mhm. ñëw Sénégal ñëpp si liggéey si fii. Mhm. donc lu tax lan moo motiver loolu. waaw li desoo Europe comme ni ko gars yi defee suñu jàngee rek dañuy des Europe liggéey foofu mais yow nga ñëw Sénégal ba jiital fi sa parti politique pour participer ci ci ci ni nga xamante ne noonu la réew mi di doxee. waaw li li waral loolu euh, lu lu lu simple la. xam nga bu la yàlla. Euh, nato ngay liggéey ci ay réforme institutionnelle mhm. euh, nga yàgg ci mhm. réforme institutionnelle réforme de la gouvernance publique mhm. gouvernance démocratique dafa am lu muy def si yow euh, te loolu muy def si yow ba pare ngay gis ni ngay taxawee réewu jàmbur ni ngi leen di jàppale ci wàllu doxaleen nga gis loolu lu muy jur ci jeexital da ngay naan loolu donte daan naa ko defal sama réew ci kaw ñetti exemple yooyu nga xam ne jox naa la ko mais da ngay ne loolu il faut nga ñëw Sénégal nga def ko mu doon loo xamante ne parce que day am benn caractère permanent donc loolu moo waral ma ne kon dinaa ñëw Sénégal jëm a xool naka lay sooboo ci li nga xam ne moom mooy la politique parce que euh, leneen li ma jàngat ci sama liggéey mooy dama gis ne suñu euh, réew yi euh, des yi bëri lu ko lu ko gàllankoor mooy fo ay caaxaan ak légèreté te loolu boo gisee nga gis aussi ne am nga ay caabi yoo xamante ne boo ko jëfandikoo mën na tax suñu réew yi mën a développé kon yow boo ko defulee rek da ngay nekk dans une situation de complicité moo tax ma jàpp ne euh, engagement bi nga xam ne war naa ko def su le plan politique devoir la devoir la loolu moo tax ma ñëw waxtaan ci kay nit nag ay kilifa ay sénégalais de toutes conditions ñu toog xalaat waaye tëbuñu rek dugg engagé wu. dañoo toog di saytu engagement boobu. naka lañ koy euh, defee naka lañ koy incarné. loolu war nag ñu toog di saytu li Sénégal mës a bind. ci politique publique ci la de politique sectorielle. stratégie de développement. lépp ñu toog di ko xool depuis 1958. tàmbale ko ci circulaire Mamadou Dia. nga xamante ne dafa nekkoon benn kayit bu am solo. bu doon tracé euh, li nga xam ne mooy développement au Sénégal. moom lañ ko euh, commencé tàmbale ko. ba plan Sénégal émergent. ko defee. xam nga li tax ñu def loolu. mooy bëgguñu dugg ci lenn loo xamante ne xamuñu lan la. xamuñu lu mu ëmb. moo tax ñu décider ne. balaa ñuy engagé wu dañuy teg engagement bi fu wóor. xool lan moo tax suñu réew demul ci kanam. donte am na lu ma la si waxoon sànq. léegi bu ñu ko seytoo nag ba gis ni suñu réew li ko gàllankoor. ay absence de valeur la. ndax Sénégal yàlla daf ko yàgg defal sutura. di ko jox ay nit. yu am xam-xam ci fànn boo ko xalaat moo xam ci diine la moo xam ci euh, cosaan dañoo yàgg am ay nit yoo xam dañu am xam-xam léegi loolu boo demee ba gis ne conjonction xam-xam boobu jurul naataange bi ñu soxla woon kon ñun li ñu waroon def mooy saytu ba pare bu ñu saytoo nag gis ni on a un problème de valeur ci li ñu tëgg benn kayit bu am am solo tuddee ko référentiel de valeurs référentiel boobu nag biñ ci pare ñu ne naka la ñuy tiiree ci biir référentiel bi projet sociétal bi ñu soxla ban façon Sénégal lañu soxla ci suñu réew tey bu ñu taxawee xool ne Sénégal bu ñu bëgg nak ci yan yan anam la war a tëddee ban façon jàng lañu war a am ban façon caada ban façon koom-koom loolu lépp dañ ko bind jóge ci loolu nag élaborer li nga xam ne mooy suñu programme politique à partir des principes généraux ak des lignes directrices donc loolu euh, mooy euh, doxalin bi nga xamante ne def nañ ko muy nekk doxalin bu méthodique parce que dañu jàpp ne ku jóg di wax ak askan bi rek ku jóg soxla askan bi war nga teg ci kaw euh, loxom loo xamante ne lu yenu maanaa la ok d'accord dégg naa la motivation yi nga wax noonu mais pour quoi pas nga yëngatu ci beneen secteur nga choisir politique c'est-à-dire da nga am mos a politique daf la neex wala soit da nga gis ne li nga pour nga liggéeyal sa réew est-ce que politique rek nga ko mën a jaaree pour mën a liggéeyal sa non xam maa ngi la doon wax sànq ma ne la mm-hmm. euh, am na ay jéego yoo xam ne man defoon naa ko ci réew mi euh, ci euh, ay réforme moo xam réforme de la carte judiciaire du Sénégal moo xam le programme de développement territorial moo xam le la réforme du cadre organisationnel de l'ONAS mm-hmm. waaw dama jàpp ne mm-hmm. boo demee ba am gis-gis ci kaw ni réew mi di doxe nga jàpp ne am na loo xamante ne yow am nga ci ay saafara am nga aussi li nga xamante ne moom mooy yéene bi kon il faut nga def ko en niveau macro nga def ko foo xamante ne foofu lay foofu ngay mën a amee possibilité mhm. toucher askan bi yëpp mhm. ndax lépp lu ñu mën a def tey en tant que citoyen mhm. wala en tant que professionnel quel que soit domaine booy liggéey ñi muy touché day doon ñoo xamante ne benn espace bu réduit lay doon de la communauté parce que yow da ngay def selon yow li nga xamante ne moom nga mënee da ngay def également selon li lay circonstance bi ak contexte boo bëggee toucher maintenant le destin loolu il faut engagé wu ci politique loolu moo tax bu ñu jàppee ne euh, am nañu ay solution ci wàllu euh, réforme Sénégal yi ci wàllu koom-koom Sénégal ci wàllu modèle bi mu war a am pour mën a dem de l'avant kon politique rek moo ñu mën a may loolu moo tax ñu décidé engagé wu parce que foofu la ñu mën a changé le cours de ce pays te xam nga dafa am lu dal suñu réew mooy 1958 euh, ñun ci li ñu commencé di tabax li nga xam ne moom mooy suñu indépendance te bi ñu amee indépendance tamit Euh, bànqaas yi nga xam ne moom lañuy jëfandikoo. Mm-hmm. constitution bi ñuy jëfandikoo. Mm-hmm. lépp dafa bokk ci li ñu xaw a yéexal tuuti. Mm-hmm. ndax bañ koy xalaat xalaatuñu ko pour suñu réew. gis nga boo gisee lu mel noonu. nga mu leer la ne yow am na ay point jël naa constitution mais y a exemple yu bari. yooyu soo xamee ne li ak lii ak lii ñoom ñooy les raisons. yi tax suñu réew mënul dem ci kanam. mu leer la ba pare nga gis ay solution yoo xamante ne euh, yow jëfandikoo ko parce ku visité plus de 88 pays. Mhm. Euh, ci àdduna bi nekk di liggéey ñoom en permanence ci domaine yëpp. Mhm. am na loo xamante ne da koy gis. Mhm. ci suñu réew yi naka lay doxee. loolu boo ko gisee engagement bi lay mën a tax nga mën a régler loolu mooy engagement politique. parce que damay jàpp ne su ma ko defulee rek. kon man dinaa bokk ci ñiy tooñ yi. moo tax ma jàpp ne dama war a engagé parce que su ma wul li may defal nit yi ci biti. ak sama liggéey ñi ma ñuy ànd di mettre en place ay jalons di poser ay jalons di mettre en place ay réformes. Mm-hmm. loolu di di jur ay résultat mm-hmm. ci ay réew yu mel ni Nigéria. Mm-hmm. kon loolu bu ñu bàyyi suñu réew rek. bu réew bi yàqoo wala am lu ko dal rek kon ñun dañ ci bokk. ok merci euh, merci ami internaute yéen ñu ñuy seetaan di leen fàttali Alhassane Niang lañu invité nekk jiital jiital Waref euh, le mouvement le devoir. en mouvement mais tey en général dañu gis fii dañu ràññee Sénégal jeunes yi nga xam ne dañu dugg ci politique. Mhm. dañuy dem ranger wu ci benn parti politique wala ci benn mouvement wala ci association ak yu demee mhm. noonu mais sa rentrée politique bu ko xoolee da nga jékki-jékki rek créer mouvement bu tudd jiital Wareef. Mhm. te mouvement bu ñu koy créer dañuy wax mooy am na aspect financier am na ay yeneen ak yeneen. du rek sur le plan administratif mais financièrement lan mooy sa lan mooy secret bi. waaw pourquoi nga ñëw rek dugal créer mouvement. waaw damay préciser ne jiital Jiitel Wareef du mouvement. c'est un parti politique c'est un parti voilà c'est un parti politique donc euh, qui est euh, constitué. Mm-hmm. Euh, ma ànd ci mm-hmm. ak nit yoo xamante ne mm-hmm. lan la ñu jiital mooy principe ak ay valeur parce que dañu jàpp ne loolu dafa dafa xaw a raflé ci doxalinu politique. li tax ñu choisir demal suñu bopp. wax nga dëgg li doon yomb ci ñoon mooy nga ñëw gis benn parti politique wala gis euh, benn coalition nga ñëw ànd ak ñoom. loolu moo doon gën a yomb. Mm-hmm. waaye foo gis lu yomb rek. Mm-hmm. kon jàppal ni démarche boobu du doon lu sincère. Mm-hmm. ñun nag dañoo euh, am benn approche. ni ma ko doon waxee sànq approche bi mooy lan. mooy bañ a dugg si lenn. sans xam ci li ngeen wulan la. loolu moo tax ma wax la li ma def sànq. ak euh, ñu ma àndal ñu def ko mu doon lu am solo. léegi nag liggéey bi mel noonu boo ko defee. dina jafe nga ñëw jël lépp bootu ci ginnaaw nit parce que moom ni muy gise ak yow ni nga gisee du doon benn moo tax ñu jàpp ne suñu bëggee incarner changement bi nga xam ne moom la ñu soxla ci réew mi changement buy porter développement Sénégal mënuñu ñëw bootu ci ginnaaw nit parce que gis-gis yi bokkul def nañu xam nga ba ñuy def suñuy revue de politiques publiques on a aussi fait une revue de la manière dont la politique se conçoit au Sénégal te li ñu gis mooy Euh, te bokk na tam ci li xaw a taat la suñu réew tuuti. Mm-hmm. mooy dañuy dugg ci politique. Mm-hmm. parce que day doon benn moyen pour que nit ci nit ki mën a gis boppam ci réew mi. Mm-hmm. wala day doon benn ascension sociale boo xamante dina ko permettre wala mu doon benn moyen boo xamante dina tax mu mën a enrichir boppam te comme ñun loolu taxu ñoo jóg mënuñoo jóg di ànd ak euh, benn parti existant donte am na parti yoo xamante ne leen tax a jóg lu baax la loolu dëgg la am na parti euh, euh, politique yi nekk ci biir réew mi mhm. am nañu ay principe mhm. ànd nañ ak ay valeurs yoo xamante ne mhm. léegi ñun lu ñu def mooy comme xamuñu ñëpp ci parti politique yi te gis nañu ne ñu bëri leen dugal ci politique dafa safaano ak ñun li ñu dugal ñu ne kon ñun ñu demal suñu bopp li ñu demalee suñu bopp nag xam nga lan la moom mooy ñun ñu sacrifié wu man loolu laa gëm te ñi ma àndal ñëpp ci noonu la ñuy doxee sacrifié wu ci wàllu alal ci wàllu temps ak ci seen wàllu doole léegi nag conjonction boobu moo ñu permettre tey ñu mën a créer suñu parti politique mhm. ndax dañu jàpp ne dañu ubbi benn parenthèse ci suñu àdduna parenthèse boobu mhm. lu mu war mhm. pour Sénégal ñun dañuy jóg def ko su ja su su su laajee ñu jóg wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan bi euh, def ay marche wala ñu bind ay réflexion intellectuelle wala lu mënti doon dinañ ko def su laajee xaalis bi nga xam ne moom la ñuy gagné par mois mhm. moo xam fukki dem la moo xam ñaari junni la mhm. ñu jël ko dugal ko ci biir mhm. loolu moom mooy suñu démarche et démarche boobu ñu ngi ciy sant euh, suñu borom parce que mu ngi ci defal sutura ok sànq wax nga fi ci aspect financier bi ci parti politique ku ko wax wax événement yi ngeen di organiser manifestation ak yeneen rencontre yi ngeen di organiser mais sur le plan financier parti bi naka lay doxee ci ci ci ñi nga xamante ne ñoo ñoo ngànk parti bi waaw dama lay jox benn exemple dimanche la ñu mujj def suñu euh, euh, anniversaire euh, de parti mu nekkoon événement bu rëy Thiès. financement bi. Mhm. militants yi seen bopp ñoom ñoo jóg ne dañ ko bëgg a financer. Mhm. sans sax ñu ñu demander quoi que soit militants yi dañoo jóg ne fi lii ñun ñoo ko bëgg a financer suñu bopp. Mhm. ici au Sénégal. gars di jot ay cotisations. Euh, ñi nga xamante ne tamit nekk nañ ay militants euh, du parti nekk à l'étranger ñoom tam ñu ne ñoom dañuy participer ci liggéey est-ce que loolu dina continuer parce que en général fii li ñuy gis sànq wax nga ko ci mooy mhm. ki nga xamante ne ni dugg na ci politique rek da nga koy def pour moyen mhm. pour enrichir ou moyen pour mhm. nga doo koy ñëw créer parti naam sax euh, xam-xam bi mate na ko fi nga jaar yëpp ci wàllu njàng ak yooyu mais Sénégal est-ce que am na benn réalité politique bi nga xamante ne ni dafa xew ci jeunesse bi mooy da ngay dugg ci politique pour am xaalis loolu dëgg la nekk na nekk nekk na réalité mhm. mais heureusement ba nekkul ñëpp mhm. loolu moom mooy espoir mhm. bi ñun ñi nga xamante ne ñun am nañ ko ba pare ñu koy suscité ba tax na am na ñoo xam ne dañ daan dugg ci politique parce que euh, li nga xamante ne moom mooy approche bi peuple bi amoon par rapport ak la classe politique moo taxoon loolu am mais comme peuple bi ak ñun ñu bëri ñu ñuy waxal ñi ngi gis ne loolu dafa war a changer parce que loolu moo tax suñu réew tardé parce que politicien boo xamante ne da ngay jóg bëgg a wax ak askan bi di ko jaay xaalis xaalis boobu moom moomu ko en réalité parce que néew na ci réew mi ñoo xamante ne dañ nekk ay politicien seen alal liggéey may leen ko loolu dafa néew si réew mi boo doon def benn sondage walla ñuy xool di tracé fan la alalu politiciens yi jóge di nga gis ne ñu ci néew ñoo ci am am alal bu leew loolu moom seen ça la réalité donc léegi peuple bi day gis ne moom alalam. Mhm. dafa am benn captation bi bi nga xamante ne moo ko dal. Mhm. politicien ñoo ko téye mhm. kon moom li muy def moom day dem topp alalam ci politicien bi di ko récupérer mais bu gisee ne am na ñoo xamante ne man mosuma def politique sama àdduna donc amul benn franc centime boo xamante ne jëlee naa ko Sénégal ndax man damay liggéey fin du mois xaalis boobu laay jël ma jëriñ politique mais non non non l'inverse ñun dañoo jóg ne dañu bëgg jëriñ la politique mais pas politique di ñu jëriñ message boobu boo ko amee nga tenir discours boobu nit ci di ko gis ci sa doxaleen kon ñoom dañuy wëlbatiku ànd ak yow ci loolu parce que dañuy xam ne lii mooy dëgg te tant que euh, sénégalais yi comprendre ñu ne seen alal ñi ko capté xaar ba élection jot ñu leen ci jompal touti tant que comprendre ñu ne dañu war a euh, ils doivent en découdre ak loolu kon dinañu bëgg a am école yu baax wala ay hôpitaux yu baax duñ ko mën a am loolu day jur ay scandale comme li ñu gis nga xam ne da ngay gis benn hôpital boo xam ne six hectares la am ñu ne jël nañu moitié bi jaay ko pour mën a tabax la moitié. ana euh, euh, euh, hôpitalu Le Dantec nga xamante ne mën naa jàpp ne sax dafa bokk ci patrimoine immatériel du Sénégal à travers turam mais bokk aussi ci patrimoine matériel Sénégal à travers la structure ak site bi donc tant que nekkuñu ci ay politique yoo xamante ne dëgg moo ko lal xam-xam moo ko lal vision moo ko lal waaye valeur moo ko lal ak ay principe kon day jur lu mel nii moo tax ñun suñu démarche elle est celle qui est euh, méthodique mhm. parce que dina tax nga waxtaan ak askan bi mhm. ubbi ay gëtam moo xam ne nii la ñu war a defee politique ànd ceeg ñoom euh, ok ci élection législative la ñu jógee ñu gis leen ngeen dem ànd ak ak coaliser ak Natangué pourquoi Natangué lu tax euh, demu leen ci Pastef comme ni ngeen ko comme vous êtes des jeunes mhm. aussi Pastef la plupart et puis Pastef ràññee nañ ci ay jeunes yéen ngeen jóg dem ànd ak Natangué ci élection législative bëgg nañ xam aussi tamit donc yan détail ngeen ngeen ngeen wax ak naataange ba war a mun a dem en tant que euh, jeune aussi en tant que aussi tamit mooy parti politique bi nga xam ne dafay dafay doog a ñëw sur le plan politique. waaw bu ñu dem ci euh, législative yi c'est vrai que amoon nañu choix. Mhm. waaye xam nga booy waxtaan ak nit. Mhm. Euh, ci lenn il faut ngeen juboo ci kàddu. Mhm. te ñun bu ñuy dugg ci législative dafa amoon ay conditions yu ñuy teg. bi si bokk bi ci njëkk mooy. lépp lu xaw a jege Macky Sall ñun bëgguñu. d'accord donc te loolu. Euh, ñi ñu doon waxtaanal ci naataange dañu offriroon euh, loolu euh, condition yooyu leneen li mooy dañoo jogoon ne lépp lu ñu war a mën a teg tey en terme de vision en terme de programme il faut mu doon li ñu bind ñun suñu bopp ndax lan dañuy bañ démagogie ndax lan dañuy bañ populisme mooy nga ñëw taxaw naan askan bi àndal ak man fii ñëwal man fii fekk yoonu kee woon yi xam nga ni lii mënul nekk léegi pour éviter dina ñu nekk di wax askan bi loo xamante ne dafa méngawul ak lu mën a nekk ak réalité. Mhm. ñu ne kon bàyyi ñu ñu bind programme ba ñu nangoo loolu nag ak yeneen conditions. Mhm. Euh, notamment sur le plan de la représentation. Mhm. Euh, ñu waxtaan ci. juboo moo tax ñu ànd ak euh, coalition naataange askan wi. mënoon nañ dem ak beneen coalition. mais dafa fekk. boo tànnee dangay ngay obligé bàyyi. voilà mais c' est pas parce que dañu ànd ak naataangi askan bi. Mm-hmm. que euh, dañuy euh, mënoon nañ dem ak beneen coalition. Euh, bu mënti doon. Mm-hmm. bu dul le parti au pouvoir loolu moo nekk ñu suñu ligne rouge. Mm-hmm. léegi nag ci biir opposition. il faut si ñuy nangu ne. day am benn je dire benn faut pas ñu am benn gis-gis. qui est uniforme. de l' opposition. man mën naa nekk opposition parce que foofu laa nekk. on se situe dans l' opposition dañu suñu ancrage foofu la. waaye ma nga nekk opposition bañ a d' accord. ak certaine exactement parce que seen gis-gis bokkul. Mhm. xam nga ñun mhm. suñu doctrine politique tey mhm. néew na nga gis ko ci je dirais sax waxuma la Sénégal mais ci àdduna bi. xam nga tey da ngay xool doctrine politique yi am fii si réew bi Sénégal lan la lu ko lal da ngay dégg ñoo naan le socialisme. communisme. capitalisme libéralisme et cetera. mais ñun suñu doctrine politique xam nga lan la moom mooy jiital doomu aadama humanisme. jiital doomu aadama ci l' action publique donc idéologie ba bokk amee donte dig ma ne idéologie nekkul loo xamante ne sénégalais yi tey bàyyi nañ ci xel trop mais dama jàpp ne boo jiitelee doomu aadama ci lépp looy def kon yow day permettre ngay affranchir say politique ci publique ay calcul mais loolu forcément doo ci mën a ànd ak ñëpp moo tax euh, ñun bu ñuy toxoon gi waxtaan ak nit ñi euh, loolu dafa am yooyu ay éléments yu ñu mettre sur la table mais les questions de de la préoccupation de l'action publique loolu bu ñu ko gisulee fenn duñ mën a ànd ak ñooñu moo tax on a fait le choix euh, donc de de avec Naataangué Askan Wi boobu duñ ko def parce que dafa dëppawul ak ñun du ñu gëm te choix boobu buñ ko defoon rek dañuy trahir suñu bopp bu ko defoon dañuy trahir li tax ñun ñu engagé wu ci politique moo tax mënuñu ànd ak le parti au pouvoir wala benn bokk yaakaar parce que ñoom bokk nañu ci li ñu bëgg dindi fii ci réew mi bokk nañ ci li ñu bëgg a xeex moo tax mënuñu ànd ak ñoom amul benn état. ci biir espace communautaire am. bu war a dépasser soixante dix pour cent. ñun ñu ngi ci soixante quatre pour cent. te su lay est que xam nga ne Sénégal. en 2012. taux d' endettement mi ngi tolloon ci vingt deux pour am benn sommet ba amoon Glen Eagles en Angleterre. ñu ne réew euh, Afrique yi. amoon ay bor baal lañ leen seen i bor. ñu jógee kon ci situation d' bu doy waar. dem ci douze pour cent de taux bi Macky Sall di ñëw on était à 22 pour cent. Mhm. tey ñu ngi ci 64 pour cent. Mhm. gis nañu inflation moom je crois que loolu moom jaruñu la koy wax. Mhm. njëg yi cher na cher boo xamante ne. tey pour nga faaleen bi bu bëggee lekk ceeb tey. lu yàlla xam doy na. essence bi moom n'en parlons pas. jigéen ñi dañuy dem nduggi. kër yi moom daanaka léegi nit ki day ndékki ak reer. wala wala añ doo ndékki doo reer. mais loolu su nekkee da nga nekk ci benn réew boo xamante ne. émergence moo la tax a jóg. waaye ngay dund paradoxe yu mel noonu. kon c'est-à-dire que sa politique publique yi da nga ko laaj ji. leneen li mooy. gis nañu suñu taux de croissance. parce que taux de croissance moom mooy tax yow nga mën a calculer est-ce que réew am na lu yokk ci moom. ci wàllu koom-koom. wala ci wàllu richesse. ñu suñu taux de croissance deux ans gi nii mu ngi presque ci zéro. dinañ wax naan c'est à cause de la guerre en Irak en wala ñu naan la euh, Covid bi la. dëgg la mais xam nga lan moo ñu yóbbee loolu tamit. donte doon nañu am sax ay taux de croissance yu baax mais loolu jëriñul askan bi parce que dañoo am benn taux de croissance bu extraverti maanaam alal bi nga xamante ne Sénégal mi ngi koy jur jëmul ci sénégalais mais day jëm ci biti parce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy profiter des fruits de cette croissance di récupérer le bénéfice ñooñu ay étranger la ñu ñoom ñooy jël suñu croissance yu bàle ko donc euh, li ma bëgg wax foofu mooy choix yi gouvernement bi def euh, Benno Bokk Yaakaar coalition Benno Bokk Yaakaar def ko pour suñu réew mën a dem de l'avant c'est des ci sont en contradiction ak ñun lu ñu gëm. moo tax ñun mënuñu ànd ak ñoom. Euh, te gëm nañu ne li ñu bind. tëgg ko bu ko proposé Sénégalais yi bis bu ñu ko incarné moom xam naa ni moom Sénégalais yi moom euh, dinañu bàyyee ko fu nekk xam ni mhm. liggéeykat yi ñëw nañu ñu mën a euh, avancer ndaw. pour mën euh, yaa ngi wax ci problème mu cherté dëkk bi. Hmm. donc ci njëg yi seer Sénégal ak yooyu ñu gis ne aussi c'est partout dans le monde. Hmm. nga xam ne crise euh, mondial moo surtout ci diggante russe ak Ukraine seen gaz bi impact. bi sax yow foofu sax la gën la gën a donc discours bi nga xamante ni hmm. su ngeen ñëwee. ci pouvoir bi mu non dama euh, euh, wax ñaari firnde nga xam ni ñun discours yu ñu wax euh, te ñun. waaw moo tax moom laa lay expliqué xam nga ku def démarche wu ñetti at di saytu politique publique yi balaa mu si dugg koo xamante ne dafa ne moom il fait le choix bi gën a jafe maanaam jéem a demal boppam kon kooku. pouvoir taxu ko jóg parce que pouvoir du finalité yaa ngi dégg léegi xam nga li daal tubaab yi dëgg la yaa ngi wax ni situation pandémie bi am na ay effet ci tubaab yi seen réew guerre Ukraine am na ay effet waaye ñoom ak différence bi ak ñoo xam mooy lan mais ñoom dañoo accompagner seen askan bi Covid amee réew tubaab yi nga xam ne kenn mënul liggéey gouvernement yi dañoo ne ku mu mënti doon fooy liggéeyee moo xam public wala privé état bi daf lay fay sa salaire toog nañu pendant 4 cinq 6 mois yoo xamante ne les gens ne travaillent pas pourtant dañ yor seen salaire kooku mën nga laaj ko la neex leneen li mooy guerre bi am Ukraine li mu jur ci wàllu inflation gouvernement bi daf ko subventionné kon gouvernement bi moo xam France la moo xam Belgique la moo xam yeneen réew jóg nañu taxaw au chevet de la population mais ñu lan lañ fi am bi crise Covid amee lan lañ fi gis ñu ne force Covid 19. fonds force Covid 19 1000 milliards 1000 milliards boobu lan lañ ci gis ay saaku ceeb yoo xamante ne man ba léegi nii xaw kenn koo xamante ne ci sama entourage bu bu nekk yoo xam nga ñoo xam ne jot nañ ci saaku ceeb yooyu nga wax ma ko mais man ba léegi gisuma koo xamante jot na. gis nañ sax ay situation yoo xamante ne qui sont les tubaab di yooyu ubuesque maanaam loolu sax c'est-à-dire daf lay sax reetaan loo euh, loolu c'est la farce mooy nga dajale préfet ñëw gouverneur ñëw ñu dugg ci benn école dafa benn dotation gars yi bu ñuy dem. caméra yi bu ñuy jógee foofu rek gars yi dotation bi dem defaat ko ci beneen école on a vu ça à Thiès donc euh, li ñuy wax ni nekkul ne dañ koy wax parce que dañoo bëgg askan bi fal ñu wala askan bi bàyyi ci ñun xel mais dañ koy wax parce que ça traduit une réalité et réalité boobu elle la latente moo tax ma ne euh, euh, li ñuy def comme constat du ñem ci loolu mais dañuy esquisser aussi ay solution solution yi nag moom laa la doon jox di wax ni choix yu ñu def moo tax tey bu demee ba guerre am imagine Sénégal day euh, produire phosphate ñun phosphate daf fi nekk en quantité suffisante yaa ngi dégg fan yële ci ginnaaw président Macky Sall dem na euh, Russie di ñaan euh, gars yi dañu lever les sanctions pour que ñu mën a am li ñuy woowee urée ure benn benn produit la boo xamante ne baykat bi ko soxla wami te loolu xam fan lay jóge transformé boo transformé sa phosphate engrais yi ñu soxla pour di bay jàppale les agriculteurs fu muy jóge ci phosphate lay jóge mais la moo tax ñun duñ ko defar fii donc moo tax ma ne suñu choix yi moo baaxul te choix yooyu nekkul seulement les choix de Benno c'est les choix yi nga xamante ne depuis 1960 depuis Senghor choix yi ñu waroon def dañ ko raté xam fa nañ ko raté en 1962 avec euh, Mamadou Dia gis nga bi ñu euh, euh, tàggalee les deux Mamadou Dia était porteur d'une véritable vision de développement pour le Sénégal waaye comme dañoo tàggalee ñaar yi parce que arrangé wuloon ñenn ñi. loolu def ñu topp ba léegi moo tax choix économique yi ñu def depuis mille cent 1962 ba léegi choix yooyu baaxul ñi ñi nag ñu ngi jéem waaye li ñuy jéem su nekkee mënul tax suñu réew dem de l'avant il faut ñu teg ci baaraam waaye bu ñu ci tegee baaraam ba pare li ñuy def mooy indi ñun lan mooy suñu solution moo tax ñun loolu la ñuy loolu mooy suñu différence par rapport ak ñeneen yi dañ wax lii moo baaxul waaye dañ lay lu tax mu baaxul ba pare ñu ne lii ma koy faj moo tax ñun on n'a pas un discours qui est populiste. waaw euh, comme Jiitel War dafa nekk parti euh, qui est relativement nouveau euh, ñu ngi nekk di ñu ngi jéem a tabax tant bien que mal des relations parce que on est dans une situation je dirais d'adversité mais xeex amul dara amul war nañu mën a toog di retrouver wu et ñun loolu la ñuy def gis nga moo tax ñun on n'est pas avare ci suñuy suñuy idée suñuy solution parce que ku ci nekk war na mën a toog bu nekkee Sénégal moo la tax a jóg ak développement Sénégal moo tax a jóg mën nañu toog di échanger euh, tàmbali nañ ko am na yenn parti politique yu ñu nekkaloon di di waxtaan euh, notamment ci élection euh, locale yi waaye aussi ci élection législative yi dinañu gën a renforcer loolu parce que nous devons tous nous retrouver autour de l' essentiel essentiel moom mooy lan moom mooy l' intérêt du Sénégal et et des des yéen lan mooy seen position par euh, élection 2024 moom de façon dootu fi nekk parce que man maa koy remplacer bu neexee suñu borom loolu moom. Ah, bëgg non non loolu kay loolu su boobaa moom ah nga gis laan mooy liggéey su boobaa sénégalais dinañ gis ni en réalité choix gis nga bu hasard du mën a du mën a defar réew. gis nga euh, démarche bi ñu teg ñoon qui consiste à venir au Sénégal indi les véritables solutions qui reposent sur un projet sociétal qui lui-même est encadré par un référentiel des valeurs loolu c'est-à-dire moom mooy tax nga tabax réew gis nga euh, su lay vision boo jëlee réew mel ni euh, Dubaï mais Dubaï amul benn ressource naturelle mais temps tey boo demee Dubaï da ngay yéemu ci suñu borom mais loolu xew foofu mais yéene nañ ko Sénégal waaye doo yem ci yéene il faut la vision vision bu war a sous yow si développement il nga am ko à partir de cette vision nag maintenant nga def des choix audacieux te choix yooyu nag dafa bëri si réew mi yu ñu war a def te defuñu ko bokk na ci les question monétaires bokk na ci réforme institutionnelle en profondeur yu ñu war a def déjà pour opérer le l'équilibre déjà entre les pouvoirs xam nga tey boo jëlee développement nga jël économie da ngay naan waamee loolu qu'est-ce que ça a à voir avec les réformes institutionnelles mais pourtant c'est intimement développement économique mënoo ko am dans un environnement boo xamante ne pouvoir bi nit a ko yor il faut que nga def envisager le développement économique du Sénégal et l'épanouissement du peuple sénégal dans le cadre de l'équilibre des institutions mais que pouvoir bi mën a nekk tam ci loxo institution yi nga def li nga xamante ne mooy le modèle économique le Sénégal a besoin d'un modèle économique man j'irai même beaucoup plus loin li ma xalaat pour Sénégal nga xamante ne dinañ ko bind jox ko ñëpp di ko lire moom mooy la pensée stratégique du Sénégal amul benn réew bu ko am ci Afrique su weesoo peut-être Afrique du Sud nga xam ne am na xam na am na war na am lu xaw a jege loolu. pensée stratégique xam nga mooy lan mooy yow tey boo fi nekkul sax yow c'est-à-dire yow da ngay liggéey benn document boo xamante ne qui est transgénérationnel nga xam ne yow boo fi nekkulee sax ku ñëw su nekkee moom Sénégal defar Sénégal la ko tax a jóg rek bu xoolee ci document boobu daf koy permettre mu am benn base wala benn assise donc gis ñun moom la ñuy léegi nag euh, Macky Sall day war a doon candidat wala doon candidat loolu pour man maa ko sax loolu euh, question boobu sax aaju nañu li ci solo parce que constitution bi réglé na loolu ba pare Macky Sall sera pas candidat la constitution le lui interdit dina gis li nga xam ne moom daal euh, li ma waxoon Abdoulaye Wade à l'époque su boobaa je crois que moom la ñuy moom Euh, ñu dem ci maanaam euh, kii bi euh, woon ci opposition bi ak naataange mooy jiitaloo def ànd ak naataange ci législative yi ngeen gis li xew ci résultat yi ci résultat yi nga xamante mu génn déclaration Pape Diop. Mm. ancien maire Dakar yow ban gis-gis la gis gis nga genre déclaration yooyu gis ci leaderu bokk gis-gis waaye au de la déclaration li nga xamante ne mooy euh, euh, jëf bi mu def dem rejoindre le camp au pouvoir loolu dafa bokk ci li tax suñu réew dellu ginnaaw dafa bokk ci li ñu war a extirper xam nga xam nga xam nga cancer su nekkee ci biir euh, ci biir yaramu nit il faut nga extirper ko loolu dafa bokk ci li ñu war a def maanaam kenn waratul taxaw dem gis askan bi ne ko votel ma askan bi votel la parce que dafa am loo ko gëmloo ñu voté la ba pare nga jël loolu dem jox ko euh, le camp pouvoir loolu dafa doon lu ñu war a dindi ci réew mi mais ñiy def loolu nag ñoom ñoo tax tey kenn buggul dugg ci politique loolu moo tax ngay dégg ñu naan politique dafa salte loolu moo tax ngay dégg ñu loolu waxu politique la waaye may wax askanu Sénégal ne leen am na ay homme politique yoo xamante ne leen tax a jóg mooy ay valeur dëgg moo leen tax a jóg defar moo leen tax a jóg épanouissement Sénégal moo leen tax a jóg waaye ku koo xam dafa jóg pour poche am wala pour ay affaire am wala pour euh, euh, defar boppam kon kooku moom mooy doxalee lu mel noonu donc lii euh, pap Diop def kenn mënu ko rafetlu je trouve que c'est une trahison du vote bu ñu nekkoon ci réew boo xamante ne am na opinion publique bu ñu nekkoon ci réew boo xam ne institution yi ñu ngi dox convenablement kon tey on devrait même lui confisquer ce poste de député war nañu mën a teg ay jéego yoo xamante ne mais parce que loolu trahison la mais mënoo ne su lay kaa ñu ànd dugg ci sama oto. nga def 5000 francs essence man ma def 5000 essence ñu ànd dem Saint-Louis yow nga dugal sa junni ma dugal sama junni dañ leen sànq francs essence rek ma leen finalement man euh, Thiès laay loolu doo ko nangu c'est ça qui s'est passé parce que li Pape Diop wax électeurs yi bu ñu voteel ko mais nga fa ne bu ñu bu leen waxoon ne day dem ci Macky Sall dañ ko voteel mais duñ ko voteel parce que Macky Sall a reçu une la ci élection yi waaye yow au lieu nga jàngat ci loolu mais li ngay jàng mooy. da ngay dem rejoindre le camp au pouvoir parce que euh, da nga bëgg a sauver les institutions mais mën nga sauver les institutions en étant neutre en étant euh, en étant en situation d' arbitrage bu nekk yow li la tax a jóg moom mooy l' intérêt impérieux du pays mais mën nga taxaw xaar boo gisee benn loi boo xamante ne li ko tax a jóg askan bi la mën nga ànd ci moo xam projet la moo xam proposition la fu mu mënti jógee mais pourquoi se mettre en en se mettre à dos le suffrage des Sénégalais yi nga xam ne wóolu nañ la. anomalie yooyu moo tax suñu réew yi il faut ñu xoolaat ko moo tax ñun suñu engagé woo justement c'est pour euh, euh, venir régler euh, genre détail yu mel noonu faire en sorte que anomalie yu mel noonu ñu mën koo gindi ci réew mi et que dorénavant bu ñu wax politique ou quand le débat politique agite le peuple mu doon loo xamante ne lu am njëriñ la maanaam da doon rafet tey ñu dégg ne Pape Diop am na benn position bu mu am sur le plan économique par exemple lii mooy wara doon suñu taxawaay sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel sur le plan sportif waaye dañu gis ni au Sénégal les questions essentielles maanaam questions yu amal askan mi njëriñ dañoo disparaître ci li nga xamante ne moom mooy la débat public tout est électoral et toute est politisé loolu mooy jur lu mel noonu. sa participation ci élection législative nga ànd ak mhm. par rapport ak résultat yi yi nga ko. waaw man damay sant yàlla bu baax bi ñu euh, bi ñu mayee ñu participer ci ay élection législative parce que jàngat naa ci lu bari euh, sur le plan électoral euh, jàngat naa ci aussi ci souffrance bi askan bi nekk ndax da nga daan dugg bu ñuy def campagne ci ay localité Euh, yoo xamante ne waxuma la sax ci àll bi de mais gis nga en milieu urbain da ngay dugg ci ay quartier yoo xamante ne mais nga gis nit ñi ndax dañu nekk ci benn souffrance sociale bu doy waar. te loolu homme politique yi duñ ci bàyyi xel gouvernement bi du si bàyyi xel mais situation de détresse bi am ci réew mi su lay je ne pas ndax gars yi se rendent compte mais les gens souffrent dans ce pays donc loolu tamit. nekk na loo xamante ne donte xamoon naa ni Sénégal nekk na pays euh, bu xaw a euh, difficile sur le plan social mais li ma ko gisee ba ma duggee ci àll bi dugg ci euh, ville yi dugg ci quartier yi daf may daf may yéem parce que da ngay toog waxtaan ak nit nga xam ni ndeysaan réew mi euh, li Sénégalais yi waroon jot ci seeni wàll jóge ci li nga xamante ne moom mooy seeni ressources jotuñu ko donc loolu tam nekk na benn benn jàngat bi ma def leneen li mooy euh, booy ànd ak ay ay ay ay parti dans le cadre d'une coalition dina baax ngeen di bokk gis-gis aussi. loolu tam nekk na jàngat bi ma def ci ci ci ci liggéey bi. merci mbokk yi xarit internet yi ñu ko doon dalal Alassane Niang ba nekk président jiital parti bi nga xamante ne mooy jiital Walf nekk ci jiital jiital Walf di parti politique bi nga na ko judduwaay it mën naa ne eh, eh, ki nga moo toogal di waxtaan ak ñun nekk jeune ba pare nekk boo ko dégloo am cursus. bi nga xamante ne nii bu extraordinaire la fi mu jaay di ko xam-xam waaye man li ma jàppal mooy euh, lu tax tey ñoom posé la ko mu nekk benn question mhm. euh, nga nga nga tontu ko nekk euh, nga Thiès. Mhm. di jaar Idrissa Seck mu ngi Thiès. Mhm. Alassane Alassane. Thierno Alassane Sall Alassane Sall mu ngi Thiès. ñooñu ñëpp di borom xam-xam yow nga nekk borom xam-xam yow nga ñëw créer sa parti. di jiital Walf nekk Thiès. concurrence boobu biir Thiès. est-ce que dara yomb ci yow. waaw mais gis nga concurrence fu mu am rek loolu la nga fay sant yàlla parce que xam nga boo nekkee ci benn environnement bu bëri ay contradiction loolu xewal la parce que contradiction day permettre ngay mën a ngay mën a gis euh, li ñuy woowee jant bi mooy lumière waaye concurrence tamit xam lan lay jur day jur émulation maanaam ku ci nekk comme ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañu ku ci ne dina bëgg a tirer le maximum euh, de li mu yor pour mën a wax ak askanu Sénégal donc bu ñu nekkee ci environnement bu mel noonu loolu loolu dañuy jàpp ne loolu xewal la moo tax. waaw euh, am nañu euh, bon bu nekkee Thierno euh, Alassane Sall lay jël comme exemple du ma ne am nañu ay relation je dirais donte bu ñu waree waxtaan dinañ waxtaan moo xam ci gis-gis nekk ñu ñuy demalante. Euh, il nous est arrivé de de discuter euh, ci ay sujet euh, ku ci nekk joxe gis-gisam ci bon ñeneen ñi du tous les hommes politiques yi nekk Thiès donc la la lay fréquenté am na keroog benn femme politique bu am solo à Thiès muy Hélène Tine voilà nekk nit ku baax dem nañu seeti ko waxtaan ak moom recueillir li nga xamante ne moom mooy ay recommandation am ak ay conseils wax ko fu ñu bëgg a jëm. Euh, donc euh, voilà Thiès est un creuset sur le plan politique mais creuset boobu je crois que c'est une chance parce que ça permet que ku ci ne boo jógee rek xam nga ne li ngay wax nii il faut mu doon lu baax loo xam day indil askan bi njëriñ voilà. Alassane euh, pas Thierno waaw ah, <laughs> yaa ngi may ñëwaat la dëgg la non waaw Alassane Niang ok ñu ngi lay remercier di la jaajëfal ci wuy si bi nga xam ne wuy si bu am mbégte kontaan bu baax toog ak yow waxtaan yow vraiment partager plateau bi ak yow di la wax ne kër bi sa kër la donc voilà témoin wu ñu nii di ko témoin saa su la soobee rek mën nga ñëw parce que ñu on est là pour les jeunes là pour le Sénégal lépp loo xam ne luy développé Sénégal

donc ñuy kontaan ci euh, environnement bi di kontaan aussi ci main tendue bi euh, ñu nit ñu ngi leen di tàllal suñu loxo ci liggéey bi ñu bëgg a dem di euh, remercier seen i internautes ci seen i suivi di leen di woo si liggéey bi ñu jóg ne leen na ngeen ñëw ngeen rejoindre ñu dans le cadre de notre combat politique ndax li ñu tax a jóg c'est de c'est pour de bonnes raisons nañu ñëw ànd ak ñun ci li war a tax Sénégal doon un pays développé ndax am nañu compétence yi am nañu ressources yi on a les moyens de le faire li ñu dese rek mooy ñu gëm ko et qu'on se donne les moyens d'y parvenir jërë ngeen jëf